fonk suñu taalibe fonk diine gi moom mooy fonk digal bàyyi tere fonk taalibe gi itam mooy waajal jëf ji di yéene bu baax te yàlla rekk tax jëf lu baax di wax lu baax jëf lu baax te yàlla rekk tax ci sax ci dàkk ñu gën a góorgóorlu bu baax mañ cee dolli rek moo di gën a dellu ci xel yi bu baax ci tawféex jure yi nga xam ne am nañu ko mooy boole gi suñu boroom boole sëriñ bi nu gën a dellu ci xel yi bu baax xel xëy na xel yi jógu ci sax waaye tawfeex ju dina am ak def ñu suñu borom def ci suñuy xol mu bëgg sëñ bi ñu bëgg sëñ bi ni ñëpp góor jigéen maa nga daw ñu ñëpp ci yem ñu ñëpp ko bëgg ci biir loolu kon war nañu sàmmanteeg wormaam waxtu wu nekk waxtu wu nekk war nañu sàmmanteeg wormaam ñun ñëpp nag amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn ku ne fa nga ca toll boo te boo nattee sa bëgg ci sëriñ bi dara war caa dolli ku lu dul orma sa digganteeg moom orma sa digganteeg moom nga ruus lenn lu dul safaan nga ruus ci sëriñ bi xormaal ko xormaal barab bii mu nekk muy dëkk bi muy Tuubaa xorma ji ñëpp la war amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn ku ne fekk ca toll mën ngaa jëfe foofa dëkk bi kenn ku ne ci ñun war naa am kers ci sëriñ bi war naa ruus sëriñ bi ci nekk fi di fi nekk di fi nekk sabaan ku fi nekk war nga xam li nga am tawfeex ji nga am sëriñ bi ba bokk ci ñooñam amaat tawfeex dëkk moom fii war nga xam nag kon li nga am sa digg ak bi xam ne ormal ko war na la waaye ormal dëkk bi bi fi ci bi mu nekk war na la la ca dam ta ta tàmbale ca gone gu ndaw ba lu mu doon doon gone gone lu mu doon lu mu doon doon gone bu yàq lu mu xam lu jeexital ci moom ci baaxu sëriñ bi loola mu tàmbali caa rus sëriñ bi tàmbali caa am kersa di góorgóorlu bu baax lépp lu mu xam ne ab safaan la mu di ko wattandiku ko di ko wattandikoo def ci dëkk bi loolu ca tàmbali ca gone gu ndaw ga jëm ci ki nga xam ne euh, dëgg la gone yi ñooy yaakaar yi ëllëg kon lu mu doon doon gone yi war nañoo bàyyi xel ci xam ne ñoo yaakaar ëllëg yi te xam ne lu baax rek la bëgg ci ñoom ñu xam ne am na xéwal bu rëy judd fii fi sëriñ bi kon war nañoo teel def seen xel ci ormal ko ormal barab bi ci bañ fàttaliku di fi jëf benn safaan muy gone gi muy ndaw li rawatina ndaw li ñi nga xam ne ñooy ndaw yi loolu moo war a nekk ci ñoom ormal ormal sëriñ bi ormal dëkk bi ndaw ñi rawatina ñoom ñoom yaakaar yi war nañoo xam ne seen wartiif xam ne buñ dee wax sàmm war ma dëkk bi sàmm war ma sëriñ bi sàmm war ma dëkk bi dafa mel ne kon ñoo ci jiitu muy ndaw yi ñoom bu ñu xamoon dañuy jàpp ne dañuy xam ne ñoo war a doon ñun wattu dëkk bi ñi koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu seen bopp ba noppi ci bëgg sëriñ bi gi ñu war a bëgg ak prestige ba ñu war a am ci sëriñ bi ak war ma war ma war war ma jëleen si war ndaw ñi dañoo war a jàpp ñoom dañoo war a jàpp ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy sawatu dëkk bi ñoo koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu seen bopp ba noppi ci kaw jéemal góorgóorlu tegu ci yoonu jub njub mooy buntu lépp lu baax njub mooy jiitu lépp bu jub amee lépp lu baax yomb xam gi yomb bu jëfe gi yomb bu jub amul lépp tëju kon ndaw ñi war nañoo góorgóorlu bu baax xam seen bopp góorgóorlu bu baax xam ne li ñu bëgg ci seen bopp njub rekk lañ koy may ca dolli ko mooy gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen diine gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen taalibe li ñu bëgg seen bopp foofu la gën a yombe lu dul loolu doon fitna rek la loolu mooy ndaw ñi ñi nga xam ne ñoo toll ñoo ca toll ñoom dañoo war a jàpp ne ñoo war a wattu dëkk bi ñoo war a ñoo war a wattul dëkk bi sëñ bi bu ñu xamoon loolu te def ko seen yitte dana leen amal njëriñ lool seen dundu àdduna gi nii waxuma la wut àllaaxira gañ jëm nañu góorgóorlu bu baax dellu seeni xel te xam ne dugg dëngal àdduna moom fitna juree rekk la amul benn njëriñ kon góorgóorlu ci xam li nu am tawfeex ju ju nu am muy sëriñ bi wala wala bi ku dëkkaate moom loolu war nañ koo xam bu baax te gën ci góorgóorlu ja xam ne loolu moo gën a gaaw ci may nu li nu bëgg waxuma la jëf ji nga xam ne suñ diggante ak suñu borom lañ ko sëqal yàlla ji yomb a jëflante lool boo yéenee te defoo dara sax mooy mu fay la dencal la boo jëfee benn mu defal la ko fukk tàmbalee ko di ko wéy mën na ko yokk di wéy waxuma laa nag defar biir ga xam ne mooy moom lay àndal defar biir ga mooy àndal day day indi day day jeex day day day jeexital barke barke boo xam ne moo lay defaral sa sa mbir yépp lu ci dolli ku muy mag ñi kilifa yi xam naa ne ñu ngi ci sax waaye ñu gën a góorgóorlu ci njaboot gi ñu gën a góorgóorlu ci njaboot bi xëy na jamono di sax jamono tax na yombul waaye nag góorgóorlu suñu kenn kàttan lu ci ci ci yar ci yar leen ci sunuy sunuy suñu lépp suñu kem kàttan sunuy su su su su sunuy làmmiñ sunuy jëf suñu digganteeg ñoom suñu xamal rawatina nag jàngal taxaw leen bu baax njàng mi njàng. moo nu gën a mën a noppal ci njaboot gi ñu góorgóorlu ñu ngi ci sax waaye ñu góorgóorlu bu baax gën leen taxaw ci jàmm njàng mi buñ toll ci alxuraan ñu def ci yitte ju sëkk ni ko ni ko baaxee defee buñ ju bu bu buñ jógee ci loolu ñu góorgóorlu bu baax jàng xam-xam kon loolu moom mooy suñu njariñ li ñu bëgg loolu rek noo ko mën a may lu ñu loolu fitna rek lay doon ma dellu si dëkk bi dellu dëkk bi li ñu ci war ñun ñëpp mooy xormaal sëriñ bi xormaal barab bi ci tolluwaay jamono danaa di xalaat ne ñi dëkk ci dëkk bi bu ñu doonoo sëriñ bi nekk seenu liggéey ñiy bay di bay ni sàmm di sàmm ni nijaay di jaay te doonoo sëriñ bi loolu da da gàddu ci lépp lu bëgg ci na gën a noppalee na mu gën a barkeele dana di wax dana de xalaat ne dëkk bi ñaar rek mën ñaar rek ñaar rek ko séq ñi fi dëkk nañ doyloo sëriñ bi te fonk seenu liggéey yàlla dafa leen ci barke ñi fi ñëw dëkk bi tax leen a jóg bu leen dara tax a jóg na leen sëriñ bi tax a jóg ku fi ñëw na ko sëriñ bi tax a jóg saare ñaan mu amal la njëriñ lool te du te du ànd lu benn lor nga dellu ci sa liggéey kon ñaar ñooñu rekk ko séq nu góorgóorlu bu baax ci xam li mu am mooy dëkk bi ak boroom dëkk bi nekk bi fi nekk nan góorgóorlu bu baax sàmm dëkk bi nan gën a seetle ndax sell na ba noppi ndax ki fi nekk waaye nag ñu ñu sellal ko xel sellal ko ci suñuy xol sell sell ko sama borom bu ñu dee xalaat loolu moo tax sëriñ bi mën na noo góorgóorlu baax ci ko dëkk bi dëkkam bi ndax sell rek la ci bëggoon bii fi ñëw réer na ab diir gis lu barab boo xam ne dafay barab bu jaamu yàlla rek la loolu wut barab bu mën a mën a liggéeyal yont bi yàlla defal ko ko loolu mu fàgguwaale ci njaboot gi yépp te lam ca fàggu lam ca leen fàggul jëboo na ci boroomam dama it wax ne sëriñ bi fàggu lu mat a fàggu fàggul nanu ko lu mat a ñaan ñaan na ko boroomam may na ko ko kon nu góorgóorlu bu baax ci xam li nu am te sàmm ko bu baax war maa dëkk bi rekk suñu kéem kàttan loolu war na sëriñ bi loolu ñun ñëpp ko bokk gone am na ci wàll jigéen am na ci wàll góor am ci wàll ndaw am ci wàll mag am ci wàll ñun ñëpp ñun ñëpp bëgg nañu sëriñ bi la ca des mooy kon nan xam nan gën a xam lanu ci war suñu diggante ak moom dara jiitugu ci nag war maal ko ci rus rus ko am kersa ci nekk fi nekk nekk fi tobaan lu góorgóorlu bu baax suñu kem kàttan te dellu si xel ak suñu yittee ñu dellu su ko rek ci njaboot gi góorgóorlu ci njaboot gi bu baax xam naa ne sax ñu ngi ci kem kàttan waaye ñu ko gën ci góorgóorlu lu baax rek ci yar leen jàngal leen def ci yittee ñoom bi ñu xam li leen bëggal lu gën a tuuti tuuti xel ma ko yàlla dénk mën na jaa xamee lu baax lañ ko bëggal mu lu ca ndaw li nga xam ne dafa toll ci dugg àdduna kooku mu xam ne wërtaxante wa daanul góorgóorlu tegu ci yoonu jub bu tegu ci yoonu jub rek li mu bëgg ci lu baax lépp li ko wax dana ko yomb li mu bëgg ci lu baax lépp dana ko yomb mag yi gën noonu rek yokk yi tëj bu baax ci jaboot bi di doon leen sant nag bu baax xam nan doxin wi xam nan na itam seen kem kàttan yéen a nga ca taxawaayu diine ji fa tabaarakallaahu alhamdulilahi rabbil alamin taxawaay yëpp itam gis nañ ko noonu ciy sant yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di doon la ñaan rek sun boom gën ñoo gàttu la tawfeex Sëriñ Tuubaa ba ñun ñëpp ñu gën soññ suñu bopp ci nekk ci li sëriñ li sëriñ bëgg ci noonu noo ngi sant ñëpp bokk yëpp bokki taalibe bi ñoo leen sant leen gërëm di xam di wax ne kàddu yi jubluñ ci dara lu dul lu bëgg suñu bopp rek dafa mel ni dañ leen ci jiital lu mu bëgg suñu bopp rek moom rek leen bëggal la leen bëggal loolu rek moo war a wax ji kon nañu góorgóorlu bu baax gën a sàmmante suñu diini gën a gën a fonk suñu taalibe gën a yokk suñu ittee la jey suñu kem kàttan jërë ngeen jëf noo ngi sant ñëpp gannaaw bu leen siyaaree eh, suñu xol eh, sedd na ci taxawaay yi suñu xel dal na rafet nañ jortu bu baax a baax itam jërë ngeen jëf tàllee bi ñaan